Joseph coto doonoon fi footballeur ci équipe nationale waaye itam entraîneuru gaynde yi génn na àdduna moom mu ngi tàmbali carrière am ca Jeanne d'Arc de Dakar laata muy dem équipe nationale def fa fukki at yi nga xam ne défendre na fu ne ci Afrique raaye réew mi après carrière footballeur am Joseph coto ràññeeku ci wàllum coaching mu njëkk a doon adjoint Souleymane Camara Gaucher waaye itam am Fall ak Alain Moisan ca Jeanne de Dakar ginnaaw gi mu dem bitim réew amal ay tàggat ngir yokk xarañteefam ci wàllum coaching ci noonee sax la décroché ab licence A de la CAF mu doonoon fii entraîneur équipe national locale dal di gagné ñaari yoon tournoi de wax ca 2009 ak 2011 Joseph Koto tàggat na fii itam équipe national A bu Sénégal caatum 2012 laata ñuy tekki ndombo tànkam teewul. mu wéy di tàggat gone yi ba ba muy génn àdduna tey jii moo nekkoon entraîneur équipe national ci ñi nga xam ne seen at dafa yées seen at dafa yées ñaar fukk ak ñett Joseph Koto nag ay mu ngi tolloon ci juróom benn fukk ak benn ñu koy ñaanal suuf woyof ci kawam